office VDN bi jàkkaarloo ak foire bi ngeen taamu ngi seen bépp bureau ak jumtukaayu bureau ak informatique moo leen di may seen revue de presse master office ngir bépp jumtukaayu bureau. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tribunal ba taxaw na juge antimafia ba yegsi na Abdoulaye Wade ak ministre ku ci masa lekk loo moomul da nga ko goqi cour répression enrichissement illicite di ëttu atte bi ñu sant ngir mu topp ñi amee alal te anam ya ñu ko amee léewul Macky Sall samp na ko ma njoogu njaay la ko jox mu jiite ko ba noppi jël ñett tegal ko ca wetam muy Henri Grégoire Diop Emmanuel Correa ak Amath Diouf le quotidien nañu Macky Sall nam mun a jaasi ja ba mu ñëw mu jël ko jox ko ma njoogu njaay nekk ko jubalul daggal bopp ba réew mi quotidien nañu booba fekk na moom jiit réew mi di Macky Sall mu daggal boppam ay bopp ba toog Bara Sadi ma newoon ca port autonome bu Dakar Macky Sall dagg na bopp ba Malick Taliad ma newoon ci FNPJ Macky Sall dagg na bopp ba Boubacar Ba ma ne newoon ci OFJBAN Macky Sall dagg na bopp ba ñoom ñett ñëpp la Macky Sall tëbal Sud Quotidien nañu tëbal gi yamul foofee rek ndax ñeent fukk ak juróom ci agence ak i direction Macky Sall tëbal na leen loolee moom jiit réew moo di jël koppar ñu doon dugal ca agence yi ak direction yooyee dugal ko ci dund bunduk Cheikh Béthio Thioune ca kaso ba ca Thiès journal yu bari xëy nañu ci dellu siwaat observateur na ñu démb ci alxames ji lu ma téeméeri nit ak juróom fukk demoon nañu seeti Cheikh Béthio Thioune ca kaso ba mu nekk ca Thiès ca ñoo ñëw bi nañu ràññee nañu ca ñett ci ay soxnaam moom Cheikh bi ak ay doomam ak i kilifa yu nekk ci réew mi ñu ca ne Pape Diop njiital Sénat ak Alaaji Mansour Mbaye njiital communicateur traditionnel yi Cheikh Béthio Thioune ca kaso ba enquête yéenekaay doon ci seen biir ca mbuur ñañu ca rey di Pape Ababacar Diagne ak Bara seeni photo mi ci xët mu njëkku libération enquête ba le journal bi topp ba ñu càmbare procès verbal bi gendarmerie def ci enquête ub Cheikh Béthio Thioune bobe la ca feeñ moo di Cheikh bi la mu wax àndul wax ja bëri ay rëq-rëq bëri lu ca dënk kuy def garab goo gis rocc ko da nga mas a rocc garab gu ami dëkk loolee moo dal ñoom Augustin Senghor la xew seen digg ak tubaab bii di Pierre bàyyi fi Sénégal journal bi nañu bokk na ci juróom-ñaar fukki millions ak juróom-ñett yu mu doon laaj fédération sénégalaise bu football ngir ñu awaas ko ci contrat am la fédération bi ñu dénk wàllu football bi ci réew mi ne du ko def maître Augustin Senghor mu jiite fédération boobee yéenekaay bi di observateur nañu dàqul benn yoon dem ca yoon yóbbu fa Pierre Le Santar ndax li mu leen def tegu ko fenn Alaaji Diouf di footballkat bi nañu ci biir yéenekaay bi loolee lépp guddal mbayum noor la mënuñu dafay firndeel ni na ci ñenn ñi ci populaire Bruno Metsu mu doxalee dafa yàq deru entraîneur français yi ndax li mu def nit ku jub du ko def Cordoba Metsu di Bruno ne ñu bu ko kenn waxati wax wax gayndee Sénégal yi ne bëggatul moom bokkul ci ñi nga xam ne yaa fi sës moo leen di taxafalu direct info nañu Bruno Metsu dafa mer mer mu rëy la guuxal waa fédération bi Walfadjri Sport xëy dikk ak ñun ci ñeenti mbir yi mu jàpp ne moo tax Pierre Le Santar wax ak fédération bi bu juba ak ñoom daal di cay génnaat ba ca njëkk moo di koppar yam doon laaj ngir ñu awaas ko tolloon ci juróom-ñaar fukki million ak juróom-ñett beneen ba moo di Pierre Le Santar Joseph Koto a toftal mooy li Amsatou Fall waxoon ne entraîneur yu fekk baax ci réew mi moo ko gënal fop ay tubaab yu ñeenteel ba di Amara Traoré ak ni fédération bi doxalee ak moom loolee moo tiital kii di Pierre Lasantar yéenekaay bi nañu ñeenti mbir yi moo tax Pierre Lasantar la mu waxoon ak fédération bi mu génnaat ca Le Soleil nañu léegi nag gannaaw Pierre Lasantar dem na Sosef Koto ma toppoon ca moom moom la joxaat équipe bi jox ma Leewtoo yéenekaay ñu xooli la ñoom awamuro nag Ndeye Kumba Diouf bind ci triple S doomi Double Less di Balla Gaye ci la baa mu nekk ci moromi mbërëm yi ca mbër ma mu xëyoon démb di Eumeu Sène Eumeu seen xëy na ko tontu ci sunu làmb ubbil yéenekaay bi Eumeu seen borom tay shinga ni Balla Gaye 2 ba àdduna bi tukki mënuma daaneel ndax daf ma ragal Eumeu Sène yamu ca ndax nee na Balla Gaye 2 bu dee bëgg naa yàgg ci seesub roi des ba mu toog na ma bàyyi sama ruq ma toog bu mu dugg ci man ne bés bu duggee ci man dina ko ñàkk Eumeu Sène te lu ci gaa yi xamul moo di Balla Gaye 2 fa mu jaar ba yegg si fii daanul mbër mu mu maase la ay màgget ay mbër yoo xamante ne ji dañuy waaj a jeexal ci làmb rek moom la Balla Gaye daaneel moom mi fi daanoon Balla Gaye di Eumeu Sène dikkaat ak ñun ca na ko daanee Eumeu Sène nekkele bi ñu naan caxagun moom la ko daanee ka daaneel wax ko sunu làmb moo di Gaston Mbengue mi nga xam ne du fekke mukk fu jàmm di yàgg Gaston Mbengue wax ci Balla Gaye 2 ba jox ko yóbbal mu yóbbale la mu ca wax moo di Balla Gaye 2 waxam ju bari ji mu nekke dara waralu ko lu dul baadoola xamul xaalis fu ko xaalis bu bari wëree rek mu dof